وعلى آله وأصحابه سوى الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جرد جفتي سرين صالحا جرد جفتي سرين صالحا جرد جفتي سرين صالحا جرد جفتي سرين صالحا xamna ni al alxaaji cisse wax deug yalla liñ bëggoon xam ci cheikh mohammedul fadal mi nga xam ni tey anniversaire am la yépp wax nga ñuko sa wax ji mom ahsanta akmalta malta wax ji matna matale na te it buñ ci yemoon sax alhamdulilahi rabbil alamin ndax def nga soññee bu am solo boo xam ni mbokki taalibe yépp am nañ ci cant ak mbégte yal na yàlla wéral sa baat bi xamna da tanya munta ñak rek ngeen dégg suñu kàddu ndax comme presse bi dañoo bëggee yewé ko ndax guddi na ci ñoom te amna programme yu ñu waroon dem waaye jox ma cër ak am ci man yaakaar moo ñu ñëw ànd ak yéen kaz Rajab bi nga xamni busra lana khat xat ataana jud wal karam lama stahallat alayna al asharu al hurum lama stahallat alayna al asharu al hurum ku teddi ki wer yoy muy bég yàlla bégale nu ko muy ashurul hurum daf ab bokk weeru rajab dañ koy wax sax rajabul fardi, rajabul fardi am maanaam weer wi nga xam da beru na le ndax ñent weer yi nit wax ashurul hurum trois mois yi njëkk yëpp dañoo dend mais rajab dafa ñëw rek écarté wu na le muy diggi muy tabassi muy muharram ñom ñet ñep dañoo dend waye ñentelu weer bi bokk ci ashurul hurum mom daa beru moo tax ñu ar rajabul fardhi. rajabul fardhi yi suñ diko tudd ci busra lana qad atana al juudu wal karamu lam mastahallat alayna al ashurul hurum kon weer wi weru weeru magla ndax dañ ko boole ci ñent yi nga xamni ñoy ñooy yi gëna yalla ber ñu tuddé len ashurul hurum weer wi nak li ci dajé di sakku ngeen diglu ñu tënk kaddu yi rek bu ko défé ñu yéggalé programme bi ndax tawféex ji moy sun loxo yi ni dékk buñ paré ñu ñaanal leen yeen ñëpp loolu moom duma ci gon dana ci ñew ci kanam ndax ñaan gon nangu moom xol moo ko yëg te kenn ku nekk itam bu ko tedd gi participer ci sa dund ni acceptel na la li nga bëggoon dang ko yëg ci sa lisanul xaal sa ruuxu sa yaram dana yëg ni man li ma doon ñaan sama borom nangul na ma ko loolu moom beneen mbir la du lu lay wax ni ngay dégg waaye da nga yëg ni man li ma bëggoon yàlla defal na ma ko ndax loolu fa muy tàmbalee mooy xol bu xol bu leer nañ da ngay da ngay da ngay am mbégte moo xam ne doo xam fu mu bawoo ba noppi day mel lépp ubbeeku ci sa kanam defee da ngay la di xam ni kon man li ma taxoon a di màggal guddi loole la ma ca doon dëxëñ lépp jàpp saabaru nangul mag yàlla bu la ko lee nag dalay jox confiance sub ni ñaan gi nangu na moom moo lay jox confiance waaw xam nga li nga xam ni nanguwul doo gëm sax ne na doo doo ci am benn kii waaye li nangu moom sa sa sa ruuxu nangu ko sa xol sa yaram da ci ànd ni nangu na loolu kon moom suñu kanam la nekk kon ñu ngi lay sant bu baax El xam naa ni fa may bëtte ab soññee lay doon ci ñaari mbir ba ca njëkk mooy weer wi nangeen xam ni mooy anniversaire lu Cheikh Mahamadul Fadal waaye mooy anniversaire lu julli gaa yi tukki ñépp ki leen dàq tukki mooy Seydina Muhammad al isra wal mi'raj ci weer wi la amee at mu nekk danañ leen ci indil ay leeral ngir xamal leen dayo bi nga xam ni julli am na ko ci kanam ak sunu boroom ba tax bi muy jox yonent def sallallahu alayhi wasallam mboolem xeeti suñuy farata julli mooy li nga xam ni da ko ba mu ñëw ma teg ko ci loxoom te loolu mi ngi amoon ci weer wi muy weeru rajab boo gisee Serigne Saliou fonkoon weer wi lool ba daan ci fas ay sey yu bari di ci di ci may ay soxna di ci sakku itam ci ñi nga xamne rafet na njort ci ñom ni senuk sel ci sen borom di len ci jangalo nooru daare na ngeen ma ci fasalel ci def ay ñaan daa xam mbóot yi nga xam ni yu lëm nako wundu nako ci biram moy weeru weeru rajab bi sa yu dikke rek xel yep war naa ci ni li gën a riis ci suñu dund gii yàlla fonk ko lool ne Muhammad ñëwal ma teg ko ci sa loxo duma ko yóbbante kenn daal la koy jox loxo ak loxo xam ne Seydina Jibril mi ñëwoon sax amuloon maqaamam fekk audience ba dafa am fu mu yam loolee boobee audience audience bu riis la te loola mooy julli kon maa ngi leen di san maa ngi leen di soññi occasion ci weer wi ngeen di sàmmanteeg julli waxtu julli ndax julli dañ ni li salaati nuurun azim tasruqu bihi qulubul musallin julli dafa am leer gu mag bu ci nekk koo xam ni day feeñ ci xol booy julli yi inna salaata tanha anil fahshai wal munkar julli dafay dàq li ñuy tudde fahsha mooy xeeti ñaawteef yi nga xam ni bakkan rek ko koy lal lepp luñ sip julli ni ngeen di fóote seen seen yére yi bu ngeen tilimee ni ba bam set ngir nek à l'aise non la julli di raxase xolum doom adama ba tàggale kook lepp lu ko mën yobbo ci musiba julli dalay dalay raxas yeesal la fóot la tagal la ak kiñaan tagal la ak tàyyeel tagal la ak mer tagal la ak deret tagal la ak lépp loo xam na laa woo ma sawara julli dafay nek en sécurité ci digënté ak lolé dafay nekk sa sécurité bii dox sa digganteeg loo xam ne boo ko toppee dem ci musiba moo tax boo gisee ñun asalaatu imaadu diin kon julli foor na waaw bu fekkoon ni diina dafa am ay bànqaas yu ko téye dañ neenaan julli la ñu ni soo ko bàyyee rek day mel ni danga màbb sa diine kon loolu lu mat di bàyyi xel la te julli dafa fe dafa nekk xeeti toroxlu goo xam ni yegg suuf jël sa jë teg ko ci suuf dëpp ko di wax ak sa borom naan ko subhaana rabbiyal ala allahuma ixfir lii daa rëy te afaa ngay wadd ci suuf njëkk nga sëgg ni ko rabbiyal azim wa bihamdihi te afaa ngay sëgg njëkk ngaa taxaw ni ko akbar te allahu akbar bu gi moo loolu lépp julli tawféex ji ci nekk ak ngëneel yi ci nekk rek moo tax suñu borom oyofale leen ko jëlee ko cinquante ba mi ba ci juróomi julli loolu nga def 50 fois doo am ak teewlu ndax nga ne ci nekk moom moo bari kon saa yu Kazu Rajab dikkee dama leen di fàttalewaat ngeen fonkaat waxtu julli yi te xam ni ku ñuy tëral ci penku bi kàbbar war laa jullee war nga rus fépp ku la war ngay julli ndax ku bëgg ñu jullee la war na fekk nga sax ci doon julli ngir bu bo fekke da ngay julli ban xëy di la jullee nga mëna a nekk ci biir réseau bi doo ko génn ba mukk waye kuy xalaat tedd ñu jullee la ku nekk war nga mëna julli ta lol da matti di xel bo démé ci jësbul murid bi nga xamni Cheikh ibrahim mom moo bind borom xam-xam bobu nga xel ni ba dañ ko umpale boroom xam-xam rek du yegg Sëriñ nee na bari na tër-tër yuy nekk ci nit tër-tër yaram yoo xam ne nee na dara mënu koo dindi lu dul nit ki di sàbbal borom nan allahu akbar yàlla rek mooy fóot ruuxu mooy fóot xol mooy yeesal nit ki mooy dàq lépp lu war a dox sa diggante ak sa boroom moom julli moo tax foo fekk kuy julli sax àddinaam day oyof toy te dafay nekk à l'aise parce que li koy tax a nekk à l'aise dafay yëg confiance digganteem ak boromam te ku yëg confiance sa diggante sa borom rek sa lépp leer moo tax maa ngi leen di soññi ci ngeen di sàmmante ak julli ku am sëriñ boo xam ni julli na ba julli ci circonstance yoo xam ni sariya àtte woon na ko ni ko jégal nañ la ko waaye mu def ko ngir pas-pas mooy Seexul Xadim ndax bi muy julli ci ndox mi ci islaam mayoon na ko sax mu faat waxtu fay ko ndax am na circonstance yoo xam ne boo ca nekkee rek mën ngaa faat waxtu dan la koy may waaye moom jàpp na ni yàlla bindul ko kuy tax moom muy teggi ndigalam yàlla bind ko pas-pas boobu mu nek ak taqwa gi dimension bi mu nekk digganteem ak boromam ken atantu ko won du ñom ñi ko bëgg na def lo du ndox mi mu jàkkaaroon kenn àttanu ko ndax ndox mi jam la àttanul pas-pas bi seigne touba nek ba taxna seigne te def lenn lu jëfe ndigal seigne te def lenn lu jëfe ndigal wa cheikhtu bi rabbil arshi waaw sil juudi wal afi wa cheikhtu bi rabbil arshi sil juudi wal afi xam ngeen ni kooku kat mu ëpp xalaat fuuf yaxya moo ko ëpp xalaat moom ban demee ba jàpp ni bis bu taxawee fii loraange dikkal ko daf ni yow ndox mënoo yore sama sécurité parce que jaam nga sécurité bi kenn rek moo ko mën a yore mooy sama borom kon su ma jàppandoo ci yow boo daanoo damay ànd ak yow daanu bal ma jàpp na si ki dul daanu mooy sama borom am na yonente boo xëy nag bi ñu ko dàqee ba mu jub garab gi am na dayab ni garab gi ubbeekul garab gi ubbeeku garab gi ubbeeku mu ne si cabax jàpp ne garab gee koy nëbb yàlla weer ko génne yére bi ñu si garab gi rayaale ko yàlla ne ko nëbbatu woon ci man ci garab nga nëbbatu loolu daawul dal Sëriñ Tuubaa <laughs> lu taxoon mu def ko bëgg a jooxe bëgg a jooxe waxtu yu boromam daanaa gis sëriñ Saliou bu ñu ko dee siyaare ba nodd waxtu julli jot buy jug mboolem xaalis bu nekkoon ci kawam day wat du yëg sax ne yor na xaalis danañ bërit daal di boot loxo yi wan leen ginnaaw ngir lan wuuy yi boromam kon maa ngi leen di sant maa ngi leen maa ngi leen di diggal yéen ñi ma ko sañ a digal tam war leen tam war leen na ngeen di sàmmonte ak waxtu julli ndax mooy tax nga am confiance ci sa borom ci lépp looy dugg lu mën a doon julli moo koy waral la ca des nag mooy ngeen baal ma damay yóbbante ñan laay yóbbante waa perse li ma leen di yóbbante rek fi muy jóge fi muy jóge dafay jóge ci dafay dama da cee dafay jóge ma nekk ci à lu tax parce que ki tax ma di ko wax mooy sunu borom damaa xamul nag yéen ñi ma koy jox ndax di ngeen nekk à jot li ko ni ma leen koy waxe dama leen di yóbbante daa mel ni ngeen baal ma rek danaa def tuuti lu ma mësul def mooy dan may tudde chef religieux naa noonu la ma am ak njaboot ci réew mi am fi ay taalibe yoo xam ni seen dund gépp ci man lañ ko aj am fi ay rakk am fi ay doom am fi ay càmmañ am fi it kàddu doonte kàddu gu soriwut ma leen di yóbbante ci ki nga xam ni moom la yàlla teg ci bopp réew mi mu jiite ñu ñun ñépp na ngeen ma baal nag ci sunu njaboot gi nga xam ni dañoo nekk ci biir kaso bi te yàlla dogal nekk gan fa nekk du seenu coobare ñu bàyyi leen te xam ne yàlla mi ngi kaso boo xam ne ku ci dugg dootul génn mooy bàmmeel te kaso bi yàlla boobee ku ci dugg dinañ la laaj dina am ay question yoo xam ne fokk nga indi réponse bi te man keroog bi ma jàngee histoire Firawna ak Moussa laa xam ne pouvoir dootul rëy ci kanam ak sama borom ndax firawna dafa amoon pouvoir lool boo xam ni yàlla bin dogalagul ci kaw suuf ku am pouvoir bu tolli pouvoir firawna waaye keroog bi yàlla nammee nasaxal ay mbiram da ko nasaxal ci xerañam ak kartanam moom borom bi tabaraka wa taala fii réew mi toll daa mel ni sax dafa mel ni sax gor yi ñoo ne ci kaso bi gor yi dafa mel ni ñi ni ci biti sax daa am lu manqué ci ñoom daa mel ni léegi sax daa mel ni sax léegi noobul dëgg day dugg kaso président Macky Sall li gën a bon ci kilifa mooy di fen diglu leen ma de wax ragal lu ma ko may Ousseynou Kane président Macky li gën a bon ci àddina mooy di jàkkaarloog saw askan di leen fen te yow nga xam ni danga leen di fen ñoom ñu xam ni dangay fen yow nga xam ni xam nan ni dangay fen ba noppi nga bëgg a nekk ci saw fen à l'aise foo ko mënul nekk déglu leen déglu leen waxuluma kenn yàlla lay waxal wax diglu leen ma rek ma kenn sëriñ Touba lam waxoon borom nda biro borom ndar da dan ni ko dan ni la yaay borom ndar mu ni ko danga fi jóge lu yàgg ndar ne fi borom ndar ne fi kon doo borom ndar kullu nafsin kullu man alayha faan wa yabqa wajhu rabbika zul jalaali wal ikraam lu dut yàlla dina fi jóge lu dul yàlla dana fi jóge maa ngi ñaan ndaw ñi fii jamono bi toll yërëm naa leen lool ndax addiye yi ngeen di dajale da ngeen ma digul di ko indil ñun sëriñ si bu économique bi daanoo du ngeen ko a mënati am te loolu daa mat a bàyyi xel léegi-léegi nag nga nas nasal yu bari mais daa am loo xam ni boo ko nee jàkk xool ko xam ni lii du dëgg la war rek mooy sànn ci sa kàddu ak loola ca man a fekk gis nga man dugg kasoog tëdd sama kër gi laa yemale te wallaahi maa ko wax de man maa ko wax Macky Sall boo ma dugalee kasama wàcce la man duma sëriñ si yëpp déglu leen ma rek barkeb sëriñ Saliou musuma wane sama bopp dama ni bu ma boo ma dugalee kaso 48 heures la la may ma wàcce la te duma yebal kenn ci mbedd bi askan wi diglu len ma rek diglu len ma rek waxuluma ma opposition waxulu kenn not gini not askan wi ma diko gis mu nakarima dama wo Abou Samb niko imi niko dama bëgg wo Pam jay professeur ak waxna la ak Pam Modou Ndiaye waxtaan ak ñom fomm bu Kazu Rajab gi may def Dakar muna ma ne ko mënumaa lok mbolo mi te nekuma à l'aise sama xol jeex na tàkk te ooma doole waaye man raa minkum munkiran fal yuxayiruhu bi yadihi fa in lam yastatixu fa bi lisaanihi fa in lam yastatixu fa bi qalbihi wa dalika adaful iman li gën a bon ci àddina mooy buur buy fen kon li ma ta bàyyi xel mooy yàlla rek a fi nekk te lu dut yàlla lu ne dina jeex man maa leen ko wax lu mat di bàyyi xel la yéen njaboot ji yéen ñi nga xam ni ndax xoola fi ne nii ñépp ay patience lañu dafa am ñu nekk urgence rek waaw daa am ñu nekk urgence rek mais ñépp ay patience la te loolu lu mat di bàyyi xel la lu mat di bàyyi xel la kon nag maa ngi sàkku yow yàlla sunu boroom yow mi daaneeloon Firawna wan ko doole ja yow yàlla sunu boroom yow mi suturaaloon sëriñ Touba ca ngor ga ak dignité ba ak personnalité ba yàlla nga suturaal seenu Sénégal bépp ci lépp lu leen di lor ak lu leen di yàqal palati de ndax ànduma kenn waaye dama leen a yërëm lool yermande jo xamni man limay lima xam xamna ko te li ci kanam xamna ko kon lol nak yëpp baye xel wax ji jeerul tit man may Ousseynou kan man ragaluma dara qulil haqq walaw kana murran deug bu teewee nang ko wax même bu la ci dee fek fekk ma problème bobu dama am problème bobu lan moy kasso <laughs> ba fa seigne touba duggee la nek noble lu mat di baye xel jamono bi ñu toll ah cheikhul khadim manki na fi cey cheikh ahmadou bamba cey ku tedd ka cey ka tax bi biro ndar cey cey cey cey borom lettre ba ci Mamadou ante seri cey borom borom ken duma jengulo ngir ma indi ko yéen fadu jàng ko man malatu subatel mënu maa mënu maa teewa dérangé wu ma parce que fi lañ koy baye te li ma sëriñ tubaay defal moo ma gënal ma lem te lu mat di bàyyi xel la lu mat di bàyyi xel la yooyu kàddu laa ne woon naa ko jottali am naa courage bu wax nag te mag ñépp jot ci su seen sax mu dugg nopp ba mu xam ne li ma ko wax dëgg la te lu mat di bàyyi xel la lu mat di bàyyi xel la nee nañu àddina ñii ko yàq boroom xam-xam bu ragalut yàlla ak boroom alal bu xamul boppam ak buur bu bew lu yàq ci àddina ñoo ko yàq te loolu daa mat di bàyyi xel la ma koy tëje mooy yéen ñi nga xam ni alal li àddina tax na ngeen di jaay seen ngor jaay seen personnalité jaay seen dinjite ngir koom-koomum àddina نعم خامني ألاقي يوم الخيام كأن كучي نك دعى ويتك سبرام بام جابني بعج جابني يورك لبنت كأن كون دعى ويتك سبرام بعج جابني يو كت لبنت لول نتنيب بايخن قل الله منك مالك الملكي توت الملك منك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من وتسدل من تشاء بيدك الخير بس ان الله على كل شيء قدير يالا كامي تك بوفوار كوكو يالا مكو خام مان ليما خام موي سماو اسكان نان نيك تي جام لول ماما انتر لان انتريسو سماو اسكان نان نيك تي جام نان جام غور ليبور نتني ام جام ni jàkk sa njaboot ñu di la xool nga leen di xool ay waay nga leen di fen ñoom ñu xam ne yow da leen di fen yow nga xam ni xam na ni da leen di fen nga jël saw fen ni dem leen layal fen wi ngir mu nekk dëgg fen du mu a nekk dëgg loolu mënu am mukk ci àddina wax ji xool ma ci kum neex wala kum naqari taaliba bu ci bég wala ba ci bégul man yàlla rek laa xool sama borom képp xooluma keneen maa ngi leen di ñaanal nag di ñaanal réew mi yëpp yàlla na nekk ci jàmm ay sëriñ Saliou woo bari yërmande ci borom yërmande ja daana wax naa ku yàlla bind ëppoo ma ci jàmm ay kooka kooka bëggul lu metti kenn bëggul lu naqari kenn bëggul lu diis ci kenn maa leen ko wax kon nag yàlla na leen yàlla defal jàmm defal ñépp jàmm ak sutura barkeb sëriñ Saliou kenn musuma deg may wax ci politique waye bo njabatew nit di len xol ñuy joy ñi seen dara di touru ñi jaxlé ñi gëlem ñi ñak ñi na ci koso bi ñi tuskaré yow ngay kilifa am responsabilité ci ñom ni pat ma lank kenn teguma ko lool rek la am luma len doon leral la ci dess nag moy ngeen bégal nu ci xaside cheikhul khadim yi ba ci fajar كين في تخا شيخ محمد الفاضل اك سيرين سعد و لين مو توفيخل لين نين كي تك سين بن توفيخل كيب كو في نيك فاج اديو ييب تي بارك سيرين سعد دوما دارا سي بير مي سعد ولا لو تخ ماي راغال كودول كودول يالا انا ما يالا ساكوما لول دا مانا نيك ينول مانا سا كون نك يالنا يالا دول limay ñaan moy yàlla doli leen jam doli leen tawfiq tawfiqi adina nak la wax addu àllaaxira assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh